waaw enfin man euh, li ma mën a jàpp rek mooy euh, ñun suñu gis-gis en tant que parti euh, Alliance et Forces de Progrès euh, itam euh, man en tant acteur politique mhm. ak en tant que citoyen euh, dafay am une constance la constance c'est la constitution et loolu dañu ko mës a wax noonu la mën loolu la ñu mës a défendre mhm. jàpp ne am na ay socle yoo xam ne moom mooy téye suñu démocratie et lii tax euh, démocratie sénégalaise euh, du mës a nërmeelu mooy socle yooyu nga xam ne c'est des base yoo xam ne kenn mënu si euh, mënu si jóge mm-hmm. lenn li mooy constitution constitution moom dafa wax ci article 62 alinéa 3 lu leer la wax dafa ne décision conseil constitutionnel les décisions du conseil constitutionnel ne sont mm-hmm. susceptibles d'aucun recours maanaam Euh, su ñu waxee su déci su décision génnee ci conseil constitutionnel ñëpp dañ si war a euh, tënku. loolu acteur politique nag bu si nekk. Mhm. quelque que soit boor bu mu nekk. que muy acteur politique que muy acteur euh, ñi nga xam ne du ñu ay acteur politique acteur mhm. politique ñun sax bëriwuñ ñun man mhm. nañ daanañ que mënuñ musuñ sax un pour cent de la population mais population yi yëpp képp koo xam ne yaa ngi ci euh, population sénégalaise da nga war a tënku ci loolu mhm. et donc dafay baax ñu koy rappeler moo tax taxoon donc euh, à un moment donné bi ñu gisee décision boobu ñu rappeler euh, léegi cette décision naka lañ ko mën a comprendre parce que li tax ma war a sànq seen décision ci mais d'accord acteurs politiques mooy opposition ñu ngi crier victoire jàpp ne am nañu dëgg ginnaaw bi nga xamee ne conseil neenal na décret président bi mais aussi la xew assemblée les sept sages nga gis nañu que ne euh, fi ñu leen doon xaar wuyu nañ fa mais aussi du côté de la majorité damay lire gis ay nit ne le report est acté maanaam li ñu bëggoon te président sàkkoon assemblée def ko daanaka li ci soppeeku taxu taxu koo bëri naka lañ mën a amee compréhension ci ñetti version yooyu. bo xam nga man euh, les prise de position d'un côté comme de l'autre man mhm. du loolu moom moo ëpp importance. Mhm. li ëpp importance moo ñu mooy euh, la constance ci li ngay def ak li ngay wax. Mhm. parce que loolu lu am solo la. Euh, am na ñoo xam ne ñoom pour ñoom le fait que conseil constitutionnel jël décision te ci biir décision boobu joxewul beneen date dafa joxe rek date limite à mhm. savoir euh, de, les meilleurs délais les les meilleurs délais mm -hmm. voilà mhm. nee les délais dans les meilleurs délais ñoom pour ñoom euh, loolu acte na le fait que euh, vingt cinq février bi wax nañ ko si sax. mënatul euh, nekk si je ne me trompe mënatul nekk que mhm. dañu koy repousser si beneen. ce moom am na kon. waaw report ci mhm. li ñu en tout cas ci li ñu lire ñun ci décision boobu. Mhm. report am na. Euh, ñenn ñi également ils disent que dans tous les cas aussi euh, comme amoon na le décret du président la République bi nga xam ne moom moo convoqué. corps électoral bi. boobu mooy kooku mooy exécutif bi. yóbbante ko. Euh, def def décret boobu ñu ne décret boobu euh, annulé nañ ko pour ñoom également loolu ñoom foofu la loolu tax ñuy critiquer mm-hmm. victoire mais en mm-hmm. fait le problème c'est pas opposition pouvoir le problème c'est la démocratie sénégalaise parce que mm-hmm. euh, képp kuy wax victoire rek victoire démocratie sénégalaise nga mën a wax parce que euh, crise euh, mooy institution yi nga xam ne ñett lañ maanaam exécutif législatif ak judiciaire bu amee ay lënt-lënt ci biir te su fekkee ne juge bi nga xam ne moom mooy juge lépp loo xam ne moom mooy mbirum élection muy conseil constitutionnel euh, fexe ba ñëpp delloo dellu si ci dal mm-hmm. loolu victoire u démocratie